Euh, Idi kii sama xarit la seigne Basiru mom supporteru Paris la Paris mom jaral nako lu lu mu am lee bob su beugé nga ñaanal Paris pour mu am ndam ba xam mën nga ko ñaan. Paris da final bi rek suñ ma seet si am ndam. bas que nga ñew non am na ñu ma ci lon waxtanal am nga fi mom aduna la. am ñu ci lon waxtanal mais gi nga sa mbokk sénégalais. Mm-hmm. mo la mëna may teranga deug la tey su ma xamee ne lii mën nga ko nga wax ma ci lu leer naññ du ma xaar dama lay jox marché bi nga géré ko me nga woo benn étudiant bu xoolal la match wax la lim ciy wax ne la gisuma coupe gisuma coupe wax la lim ciy wax lu leer naññ wax la ci. ne la sàngam ne ko xaar ko nga waat ko ne ko non génnal sa xaar après bi jeexee mooy loolu loolu amul. final bi jeexee ah, amatul yooyu nañ yooyu carte sur tegal ma teg teggil ma teg yooyu am. dégg ma équipe musta jël Ligue des champions manam tay ñu indi won leen ci Idrissa Ndiaye su ñëw jël Ligue des champions équipe bu ko musta jël la la wala équipe bo xamni su ñëw bëri comme ma jox la exemple ay Red Bull Salzburg yoy man bëgguma ay Paris de bëgguma ay Bayern bëgguma ay Barça dé ay Red Bull Salzburg fa nga xamni ñom son nañ si Ligue des champions bi su ma leen pousson nga xamni lepp lépp dëgg la. ñu ñëw ci équipe euh Paris kalam Barça Paris Barça. Paris du ñak ale Paris du ñak ale Juve du ñàkk ale Bayern du ñàkk ale <laughs> loolu ma wax la ko loolu man man maa ko may. léegi kenn du seen almas ale moom duñ ko ñàkk ñi limal ñooñu. loo ci wax. <laughs> Ah, loolu moom mun naa la ko mun naa ko